auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim asalaamualeykum waa adduna yëpp asalaamualeykum waa sénégal asalaamualeykum waa jurbel asalaamualeykum waa touba ñu ngi fii ci bërëb bu tedd bërëb bu mag bërëb bu barke muy armeel touba yi nga xamante ni suñuy kilifa dañ fa nekk suñuy sëriñ suñuy yaakaar suñuy soppee suñuy mbokk ñuy ñëw fi di siyaare ak barkeelu day ñaan suñu borom di fàcc ni aajo tey yokk leer yi ñi nga xamante ni ñoo fi tëdd di siyaare seen i bërëb di ko xam di ko wane ñuy ñëw fii nag tey ci bërëbu kilifa gu mag bu am taarix bu am tur ci yoonu murit muy euh, bërëbu sëriñ ñu Ndiouga Kébé mi nga xamante ni moo nekk nii ñëpp xam nañ ko mu tudd El Hadji Babacar Kébé ñu gën koo xam ci Ndiouga Kébé mu nekk nii. waaye nag bërëb bi mi ngi nekk nii ñu fi tamit waa kër sëriñ mbaalu Kébé yi ñu nekkaale nii mu ngi dend ak tamit bërëbu waa kër Cheikh Ibrahima kebe yi taalibe Sëñ Tuubaa ak waa këram bërëb bi nag moo nekk nii boo weesoo bërëbu Sëñ Baara boo duggee ci armeel yi weesu bërëbu Sëñ Baara maanaam bërëbu Sëñ Baara bi moo nekk nii ñuy jàkkaarloo nii ci ginnaawam nag boo ko weesoo nii maanaam ci la bërëb bi nekk muy bërëbu Serigne. alhaji babacar kebe ñu gën ko xam ci njuga kebe waaw bërepp nak mo nekk ni euh ñukoy dektal wa àdduna bi yëpp waaw mo nekk ni bërepp bi bërepp bu serigne babakar kebe ñu gën ko xam ci njuga mu nekk ni mel nii ñu koy eh, wan waa àdduna ku fi jaarate rek ñëw fi inshallah rabbi manam mun ko siyaré mun fay ñaan suñu borom eh, yok ay leeram tànc ay barkem ñu sant ñëpp te gërem ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.